bi biirante ci sunu diggante bokk na ci sellal gi nga xam ne moom lañu wax ne mooy diine kon waxtaan tey mi ngi jëm ci digle lu baax ak tere lu bon ak aslëf ci li nga xam ne aju na ci ci ay àtte digle lu baax ak tere lu bon dafa nekk lu am solo ci diine sunu boroom subhaanahu wa taala dafa tàgg xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jagleel leen ay ngëneel yu mu defalul ñi leen jiitoon ci ay xeet yëkkat seen daraja lépp nag mu layaale ko ne li tax mu mu di leen tàgg ak litax mu wax ne ñoo gën xet yi leen jiite woon yi leen jiitu woon mooy ñoom aw xeet lañ woo xam ne dañuy digle lu baax te di ca nekk ba noppi di tere lu bon te di ko wattandiku kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billah waxaat feneen ne alladina in makkannahum fi l ardi aqaamu salata wa aatawu zakata wa amaru bilmaarufi wa nahaw anil munkari wa lillahi aqibatu l umuur waxaat itam attaa'ibuuna al'aabiduuna alxaamiduuna assaa'ixuuna alraakicuuna assaajiduuna allaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna anil munkari walxaafizuuna li xuduudillah wa bashiril muminin kon ci aaya yi suñu borom lu ca tagg xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci seen ngëneel waxit féete giñ féete kaw yeneen xew di ci des te loo li ko waral mooy dañuy dégg dañuy digle lu baax di tere lu bon kon digle lu baax ak tere lu bon lu am solo la loo xam ne day aw xeet da ci yëkkatikoo waaye sàggane ko it day suufeel aw xeet kon lu am solo la mu nekk loo xam ne nag warteef la maanaam farata la ci bépp jullit bu nekk mu kàllaf boo xam ne sart yi tax nit a digle lu baax ak tere bon dajane ci moom day nekk farata ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ci xadis boo xam ne sayidna abu said alxudri radiallahu anhu moo ko nattali mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman muslim moo ko solo mu ne dégg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne ku gisub safaan ku gisub safaan moo xam na ko gis ci sa bët teg ci sa bët wala muy loo xam ne dem nga ba xam ne safaan bi am na ñu ngi koy def képp ku safaan ci anamu gisin yi ku ko gis maa nga xam ne xew na nang ko dindi ci sa loxo nang ko dindi ci sa loxo soo ko mënul nga dindi ko ci sa làmmiñ soo ko mënul nga dindi ko ci sa xol dindi ci sa xol nag mooy la gën a néew ci loo xam ne ab jullit war na koo def su ko deful rek deful waru garam kon ci hadis bi la ñuy tegtaloo ci ne digle lu baax ak tere lu bon day farata ndax wax yi dafa matale wax gi ni mu wax ku gis ku gis la wax ku gis safaan ci yéen rek képp koo xam ne gis na safaan ci yéen ci yéen mooy yéen jullit ñi yéen jullit ñi ku ci gis ab safaan mbaa mu yëg ne ab safaan am na rek te muy mukallaf moo xam ne xam yëg na safaan bi euh, lu bon li jëf ju ji xam na ne ñi ngi koy def dan teg na ci bëtam baa am na ci xam-xam bu ko leer nañ ne mi ngi ko ñi ngi koy def euh, kon kooka rek wax ji ëmbaale na ko kon wax ju matale la matale googu nag moo ñuy xamal ne kon bàyyiwul kenn waaye fal yu xayir waxin woowu na ko soppi waxin woowu ci arab ndigal loolu dañ ne saa yu suñ borom waxee noonu wala yonent bi saa su waxee noonu day tekki ne wax ji farata la dig leen dig la ñuy waxee noonu kon daal faratala ci bépp jullit bu nekk mu kàllaf bu gisee ab safaan bu gisee lu bon maa mu yëg ni ñu ngi koy def mu xam ko na ko dindi bu fekkee xam nga am na fa bu ko bu ko defee dindi gi nag kenn ku nekk fu sa kàttan tolu rek fala sa warteef na sa warteef di toll ki am kàttanu dindi ko ci loxoom te kooku mooy buur maanaam kilifte kilifa ak jullit yëpp ki yore dogal yor atte yor doole yor ngan yor kàttan goo xam ne lu ko sañ naa dal ci kaw nit jàpp ci loxoom ne ko bul defati nangam waaw mën a jàpp mën a tëj a rey sax bu fekkee ne rey war ki am kàttan googu te mooy li ñuy wax pouvoir ki ko am kon dindi ko ci loxoom da koo war faratala ci moom te mooy njiitul jullit ñi kilifa gi maanaam buur bi ak i ndawam ya ko toogal ci barab وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول selon war warteef la ci moom maanaam farata la ci moom muy dindi ab safaan muy tere lu bon maanaam mu koy mu koy mu koy tere ci kàttanam mu koy muy dox diggate nit ñi ak jëf jëf ab safaan mu jëf ko ci mën naa loolu war warteef la ci moom mu def ko ab safaan mooy lépp loo xam ne lu bon la rek moo xam wax la wala ay jëf la wala ay melokaan la nga xam ne diine tere na ko boroom xel mu rafet mu ko gis itam ñaawlu ko loolu mooy lu bon kon dindi loolu dox diggante nit ñi ak jëf ko loolu war teef la farata ci képp kuy ku amug noteel ca ñamu yilif nga xam ne mën na leen a tere ñu baax euh, kon dindi googu farata ci ku noonu képp koo xam tam doo buur doo ndawam it waaye kilifa nga gu amul noteel ca ña nga yilif nga xam ne am nga sañ-sañu ak doole yi dox seen diggante ak def la ñuy tere euh, kon dindi safaan boobe ci anam goo xam ne nag day xel mu rafet ak doxalin wu xereñ nga xam ne dindi ka du jur safaan bu tol ni jëf nañ koy safaan ba ngay tere doo tere ga du indi du indi lor ju tol noona mbaa ju ko gën a rëy kon su fekkee sart yëpp daje na ci su boobaa kon dindi ga day nekk farata ci ki nga xam ne kilifala la gu amuk noteel ca ña mu yilif naka noonu ci buur bi maanaam jiitul réew mi ak ak ndawam yi ne ci barab yi kon loolu farata la ki nga xam ne amul amul noteel googu nag kon li ko war moom mooy mu wax ca ci làmmiñam bu dee boroom xam-xam wala muy boroom xel mu rafet mu man mu xam la mu la muy wax ak la ca aju lépp ci lu jub ak la ci lu dib safaan kon wax ca wax ca tere ko ci anam goo xam ne gu xereñ lay doon goo xam ne du jur fitna du jur it safaan bu gën a rëy mbaa bu toll ni bi muy tere kon wax jooju itam farata la ci ki ko nga xam ne loolu mooy man-manam ki amul ak noteel amul làmmiñ ak xam-xam bu mu waxee it kon moom la ko war mooy naqarlu safaan bi fu mu gisub safaan kon na ko naqarlu ci xolam te fañ koy defee na fa jóge na bañ na koy def te bu mu leen jàppale ci lenn loolu kon jullit bu nekk rek am nga wàll ci bu ab safaan xewee nga am ca taxawaay bu la war boo xam boo ko deful dangay ngay am bàkkaar kon noonu la boroom xam-xam yi eh, fire xadis boobu kon kenn ku nekk rek dindi safaan maanaam tere lu bon ak digle lu baax faratale ci yow ci kemtulaayol fa sa daraja toll ak sa man-man ak sa kattan mu nekk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne buñ ko deful lor ju rëy rëy rëy mën na caa mën naa judd ci ñàkk a def ga jëm si ci mbooloom julit mépp du yem ca ka doon ña doon def safaan ba rek waaye mboolem ñay dund ca barab bay ba ñuy defe safaan ba ñëpp lor mën naa dal ci seen kaw ngir ñàkk ñàkk a tere safaan ba sayiduna xusayfa tubnul yaman wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne wallazi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna anil munkari aw la yushikanna allahu an yunzila alaykum iqaban minhu summa tad'una summa tad'unahu wala yastajibu lakum mu ne giñ naa ci ki yor sama bakkan ki yor bakkanam yor bakkanu ñëpp mooy yàlla yonent bi sax daan faral di giññee noonu di wax ne giñ naa ci ki yor sama bakkan loolu da ko daa giññee mu ne giñ naa ci ki yor sama bakkan ne da ngeen sax ci di digle lu baax di tere lu bon wala bu ngeen ko deful jege ngeen lool mbugalum yàlla mu muy bëgg a wàccee ci seen kaw moo xam ne bis bu ko wàccee ci seen yéen ñëpp lay dal te bu ngeen doon ñaan yàlla yi du ko teggi ndax yéen a ko teg seen bopp am beneen xadis boo xam ne sayidna abdullah ibnu omar radiallahu anhuma moo ko nettali mu ne latan la tamurunna bilmaarufi wa la tanhawunna an il munkari aw la yusallitanna allahu alaykum shiraarakum wala yasumunnakum suu al azabi fa yadoo xiyaarukum wala yustajabu lahum la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna anil munkari aw la yab'athanna Allahu alaykum man la yarhamu saghirakum wa la yuwaqqiru kabirakum giñ naa ne dañu sax ci di digle lu baax ak di tere lu bon wala bu ngeen ko defut yàlla dana leen nattoo ay buuri àdduna yu am doole te nokki ñu bono bon ñoo xam ñoo yées ci waa réew mi ñu leen di fitnaal di leen bugal di leen xoñ xor ñoñal ñi gën ci yéen mooy seeni kilifaak seen gaay yu baax di ñaan yàlla ngir mu teggi mbugal maak fitna ja te yàlla du leen wuyu giñ naa ne da sax ci di digle lu baax ak tere lu bon wala yàlla dana leen booleek ay kilifa yooyu àdduna yu bono bono bon yoo xam ne du ñu yërëm ndaw du ñu war maal mag kon loolu ay nattu la yu mën a jógee ci ñàkk a digle lu baax ak ñàkk a tere safaan ci mbooloo mi kenn ku nekk ca nam ko waree ak nam ko nam ko nam ko nam ko mëne digle lu baax ak tere lu bon kon farata ci bépp jullit bépp mukallaf loolu la sëriñ bi wax ci jawhar nafis bi muy lim farata yi war ci mukallaf mu ne wa an yakuna amiran bi rusdi wa nahiyan li nusxatin an diddi mu ne war na ci mukallaf muy digle lu baax di tere lu bon ngir laabiire bokki julitam waaye nee na nag digle lu baax ak tere lu bon daa ami sart yu war a daje ngir ñu door koo def lakinnahu lahu salaasatu ذكرها في شرح شيخنا المحيط أي أن يكون أعنيت في الجواز والوجوب فهاك عدها على الترتيب أي, أي أن يكون عالما بالمنكر وليس مفضيا لشر أكبر وأن يكون قادرا ذو الأمر على الإزالة بغayri nukri mu ne digle lu baax ak tere lu bon dafa am ay sart yu war a daje ci ki koy def mu door koo mu door a dagan ci moom ba mu doog a war ci moom bu amul nag def ko day araam ci moom nee na wax sart yooyu boroom saraba maanaam ku ñu wax Muhammad ibnu Salim bokkoon ci ñi sara téere bi ñuy tuddee Laxdari matnul Laxdari nee na wax na sart yooyu ci sara boobee mooy balaa digle du baax ak te du mën war ci mukallaf mi day xam safaan bi day xam ne day gis baa mu yëg ne nang jëf ju bon ji ñi ngi koy def xam ne am na xam-xam ci ne jëf ji am na te bu ko dee tere bu def safaan bu ko dee tere tere ga bu mu jur fitna ju toll ni def gañ koy def mbaa ju ko gën a rëy su fekkee safaan bi ngay tere tere gi mën naa jur fitna ju gën a rëy waa ji mi ngi def lu bon waaye boo ko teree mi moom mi ngi naan mi ngi naan am ñoolu mbaa mi ngi def safaan waaye tere ga mën naa jur faat bakkan moom lii muy def bàkkaar la boo xam ci moom la yam waaye suñ ko ko dee tere tere ga mën naa jur ñu faat ñu faat ay bakkan baa ñu yàq ay alal kon su boobaa tere googee day araam te it ki koy tere na nekk koo xam ne am na kattanu bu diglee ñu def bu teree ñu baax day am doole day doon ko amul noteel koo xam ne am na doole lii muy tere mu mën koo dindi bu dee koo xam ne nag amul doole ji amul kattan gi ba tere ga mën a jur na ba koo xam ne yëgul ne jëf ji am na su boobaa kooka eh, digle lu baax ak tere lu bon du nekk lu war ci moom bu fekkee ne nit ki nag xam gi am na dig eh, tere gi tere gi du jurub du jur safaan du jur na waaye nag amul kàttan kon su boobaa tere ga dagan na ci moom rek waaye nekkul lu war am na yeneen sart yoo xam ne sëriñ bi tudd na ko ci Jawarnavis waaye neen sart yooyee borom xam-xam yi dëppowuñ ci ne eh, luñ ca boole la kon nag digle lu baax ak tere bon daal lu am solo lool la loo xam dana tax jàmm am dana tax yàlla wàcc yërmandeem waaye ñàkk koo def mën naa jural fitna am réew ak nit mën naa jurit nattu bu méttee metti buy bàyyi ko ci sunu borom ñu baax ñi di ñaan te deesu leen nangul kon ñu bay gën cee bàyyi war kenn ku nekk ci nun ca ca toll ci daraja ak man-man kon ñu ngi ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp saxal na ci njub may na mujj rafet wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 المواقف الشاملة وبلغنا بمنه الأزمنة المباركة الفاضلة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده المؤمنين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشتغلوا قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بيدكم وبين ربكم تسعدون وأكثروا من الصدقة ترزقوا وآمروا بالمعروف تحسبوا وانهوا عن المنكر تنصروا وإن من علامات العقل وجاء في الباب الغلو والإنابة إلى دار الخلود والتزود بسكن القبور والتأهب ليوم النشور ولا تفرطوا في جنب الله faqad allamakum kitaabah wa mahhaja lakum sabiilah liya'lam alladhiina sadaqu wa ya'lam al-kaadhibiin fa ahsinu kama ahsana allahu ilaykum wa aadiyu a'daa'ahu وجاهدوا في الله حق جهاده هو اتباكم وسماكم المسلمين الحمد لله الذي أشرق أنوار اليقين في قلوب من شاء من العباد ونشهد أن لا إله إلا الله الكريم الجواد ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسوله الذي بنوره أضاءت الأغوار والأنجاب أما بعد فيا أيها الناس إن آيات كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا تزال تبين على أن الخير كله في الانقطاع إلى الله والإعراض عن كل ما سواه والمسارعة إلى ما ينال به رضاه ومن أفضل ذلك الصلاة فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن أجل ذلك تتابع المتقون الغدو والرواح إلى إلى المساجد فحافظوا رحمكم الله على هذه الخيرات وعضوا بالنواجذ قبل الفوات فتح الله لكل خير بصيرتنا وبصيرتكم وطهر من كل شر سريرتنا وسريرتكم أهلهم تغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم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

تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا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 آباءهم الله الله أكبر سمع الله لمن Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar